ana adama adama président yaa ngi jox décoration jàmbaaru fàkk te di jox xamante ni mënta ñàkk ci làmb il joue un rôle important macha allah très discipliné asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp kii bi nag ñu ngi tudd Lamine maa ngi lay félicité bu baax a baax parce que li ñu yombul parce que boo gisee mbëri ñu mun a ràññee mbëri ñu mun ñoo xam ne ñoo ëpp ay ay kii ay drapeau yéen moo tax yéen ay ak yéen journaliste yi ñu di félicité bu baax baax di gërëm bu baax na waa Lamb Sénégal ma ay si orateur bu baax baax waaye waa Lamb Sénégal ñoom ñëpp ngi di gërëm di leen sant ñoom xam ne affaire bi famille la ñun ñoo ñëpp ñoo ko bokk boo gisee lii ñu def ko comme ko kii waxe première édition deuxième ba quatrième lolu japp japp ma japp motax ñu am lolu maa ngi félicité bu baaxa baax di leen gërëm di leen sant ñaari kàddu asalaamaaleykum tout droit kon hein? ma koy waxee à chaque fois nuyu naa leen yéen ñëpp am contentement bu rëy taxaw fii bu may décorer tey sama jur morom mu ne loo xamante ne du sama njàmbaarte peut-être ñiy seetaan ñoom ñoo ko moom parce que ñoom ñooy abonné ñu leen di sant bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy amateur yi amuñu seen fay à chaque fois ñoom ñoo ñuy suivre boo dugalee dara ñu ñëw si commentaire yi nga ne lii ak am na ñoo xam woo téléphone di sant ñëpp làmb ñi ko seq yëpp ñu leen di sant mbër yi promoteurs yi amateurs yi waa CNG ñu ngi sant ñëpp di waaye wax lu làmb Sénégal amuñu seen fay parce que lii comme ni ñu ko waxee doon na loo xam ne ñëpp a koy rafetlu saison yi bu jeexee ñu dajale mbir yi gën a ràññeeku décorer leen loolu motivation la parce que ku gis say morom ñu leen di décorer ren da ngay góorgóorlu pour bu déwénee nga mën a bokk si ñu ñuy décorer donc waa sant nañ ñëpp di gërëm aussi sama ki nga xamante ne moom laay àndal sama doomu ndey ñu nga ko mën a waxee mooy kii parce que Diop man kese moo ci nekkoon. moom mu bàyyi léppam ñëw di si jàpp ñun ñaar ñu ànd ma bëgg yéen ñëpp ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax Zal maa koy gërëm bu baax di ko sant di sant euh, sama mbokk reporter yëpp gaa yëpp su ma limee damay juum sant naa ñëpp jërëjëf mais di sant aussi waa Koba Ngoy Séeréer fu ñu dëkk Koba di sant suñu wéjur ñëpp suñu mbokk yëpp fogole séeréer foofu isib na noonu ingit ma noonu kéeki jega ngaa xayi noonu taxul ñoo ko ñaan tout droit tàcc leen ko waaye borom affiche salaamaaleykum mbooloo mi dañuy bañ a guddal rek parce que mu ngi guddi donc di wax ne ñu ngi assistance bi di nuyu le président Meïssa di nuyu le président Abdoulaye Sénégal di wax ne décoration presse bi donc tànn nañu trois mais nag mel ni rek ñëpp la ñu décoré même ñu ñëw ñu ñëw ñëpp dina bokk décoration je vous remercie. waaw xanaa di kontaan rek eh, salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum ñu fi teew ñëpp di kontaan ci waa Ahlu Lamb Sénégal ci initiative bi parce que comme ni ko Lamine waxee nga toog ci say moom bu ñu lay déggoo xam naa ne loolu tamit eh, lu neex la quoi xam naa eh, je peux dire amateur yi ñoo tax ñu egsi fii parce que comme ni ko Lamine waxee ñoo ñu yëpp maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama mbokku mbër yi parce que ñu ñoo bokk liggéey bi. ndaxte affaire bi des fois day métti mais des fois dañuy comprendre te di bëggee amateur yi di bëggee sama waa dëkk waa Palmarin parce que dañoo solution gis naa ñu ma jàppale kon nag aw ma seen fay maa ngi bëggee ñëpp xam naa wax bi nag sooy waa parce que mooy loolu en tout cas bëgg naa ñëpp bëggee sama grand alpha bëgg naa ko bu baax a baax a baax a baax di bëggee sama gars yi waa Palmarin ñoom Mbaye Diop ah ñoom Babou Kali bëgg naa ñëpp merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf Zambro TV merci beaucoup.